di ziar bu baax euh, ñëwoon CRC rek suñu sëriñ euh, suñu waajur euh, sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane ñas mu maam xalifa xalifa bu leew na ñëwoon nemmeeku si ko siyaar si ko joxanteeg moom cër jox ko war ma joxal ko wàccuwaayam muy loo xamante ni dañ ko yéex a def ci wax gum ñu waxoon ne ñoo yéex a ràññee waa tey loolu waratoo ñu nekk moom ci dëkk bi dégg nga ba mu di ñu jàmbat dégg nga te gisuñu loolu moo waroon tey ñëw di ko tuubal si Eh, di jokk si ci moom ci eh, ak mbokk ak taalibe fas yéene incha allah da nga nekk ci suufam nekk ci ronam da nga di déglu ay ndigalam di moytu ay tereem di ñaan yàlla mu ñu koy defar bala mu ñuy digal te dégg bu ñu fekk ci lenn loo xamante ni maam daf ñu daf ñu koy tere eh, li gën a neexit nag war na ma ne bool na ma ci njabootam nga dem ñu génnee wax na ne nañ ko wutal suuf dégg nga defal ko fii ci kaw tali bi dégg nga ram buntu këram ba ci buntu jumaa ja loolu wax naa ko président Mour Ndiaye Rahma dégg nga nee nañ suba dañ ko indi incha allah juróomi sar suuf dégg nga incha allah ngir fas ko yéene defar bu soobee yàlla loolu mu ne ko suñuy tànk ñëw siyaasi ko di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko ci jotaay bi yàlla yàggal ko fi yàggal ko ci kanamu njaboot gépp barke alxuraan barke maam xalifa waaye barke Cheikhul Khadim ñu ngi koy sant baax di gërëm baax waa di xam ne li yàlla tawfeex la Euh, ci euh, njabootu sëñ Touba mm-hmm. euh, njabootu sëñ Mountakha moom mi fi toogal jotaay bi sëñ Touba mm-hmm. ñëw ziar si dégg nga ki fi toogal dégg nga jotaay bi moom xalifa yaakaar naa loolu ak yokkute la yaakaar naa féete yi dégg nga ci lislaam yëpp loolu moo waral tey ñu ŋàbb suñu tànk mm-hmm. ñëwoon ziar si bi.